ngeen a jot yi maa ngi nuyu ñëpp kenn ku ne sa tur ak sa sant dossier bi nag duma ci wax parce que amu droit wax ci mais dinaa seetal sama der kaaminu alxuraan laa yor kaamin at nga ne man maa la wax ne. nga naan kafe ak xaw ma lan nga boole ak moom pour sa ëmb bi dañ nga ne yow bi ngay génn kër gi kenn dàqu la yow yaa demal sa bopp nga daw dem sa kër maam nga ne ba ngay duggaat ci biir kër gi man maa la woo téléphone na la ñëwal parce que kër gi lu fi nekkoon amatu fi bu fekkee sama kër am na massage bëri bëri wala yow bi ngay génn kër gi man dàquma la wala man maa la woo téléphone la ñëwaat ci kër gi wala ma wax na la jëlal kafe nga naan ko pour sa ëmb bi dañ kaamil alxuraan laa yor bu fekkee loolu laal naa ci dara yal na ma yàlla suñ borom bi toroxal yal naa alaku si lu yàlla suñ borom bi bind ma gën see yées yal naa yàqu ba faw ba senegal yépp teg ci seen bër Adji man xawma lu bon jullit laa dama laa bëgg a xamal ne man sama institut amul lu bon aji man jullit laa dama dem màkk 2008 xam bu baax li may def aji li nga wax ci tele bi nga toog Sénégalais di la seetaan bu fekkee laal naa ci dara alxuraan laa yor bu dee laal naa ci dara yal naa torox ba faw yal naa yées yal na ma yàlla suñu borom bi alak ba Sénégalais yëpp xam ne finaa mii Ndeye Khady Ndiaye mii alaku na yàqu na aji man banaa la ak yàlla suñu borom yal na ma yàlla àtteeg yow aji dag sonal yàq sama liggéey maa ngi nii lu ma yaakaar sama àdduna mooy sama liggéey nga yàq ko ma toog xamoo lan laay dundee yàlla rek laa dénk sama bopp nga toog di ma fenal barke Seydina Muhammad banaa la ak yàlla si barke alxuraan bii ma téye bu fekkee li nga wax laal naa ki dara yàlla naa torox ba faw yàlla naa yàqu ba faw yàlla naa gën a yées si lu yàlla suñu borom bi bind banaa la ak yàlla suñu borom fii